bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu fas yéene waxtaane sëriñ tuuba qaadallahu lahu maxtaara lahu ci waxtaane ay cosaanam ñan ñooy ay maamam fan la cosaanoo nan lañ sañcee Mbàkke Bawal bi nga xam ni fi la gënee jamono ñi koy wax nag fas yéene koo sukkandikoo nag ci téere sëriñ Moussa bi ñuy wax Mir'atu ulil absar sëriñ Moussa dafa wax ne acheikh ahmada bambal mbakki yu xaadimu rasulil makki yu sallallahu alayhi wa kon Serigne Touba nga xam ne mooy jëwriñ yent bi sallallahu alayhi wa sallam waajuram mi ngi tudd Muhammad Muhammad nag euh, mooy Mamor Anta Sali ibni Habibillahi mooy maam Balla Isa ibni Muhammadil Xayri euh, Muhammadul Xayri moom mooy maam Maharam maam Maharam nag dafa siiwee ci maam Maharam ndax wolof mooy wax nu maam ma moom aram yaayam moo tudd aram ñang maam ma aram moomu nag baayam mi ngi tudd xabibullaahi kon xabibullaahi mii maam xabibullaahi mii nag moom la tudde euh, maam Balla Isa maanaam kon maam ma aram dafa tudde euh, baayam maam Balla Isa kon maam xabibullaahi mii nag Euh, baayam mi ngi tudd Mouhamadul Kabir Mouhamadul Kabir mii euh, baayam mi ngi tudd Saïd Saïd euh, baayam mi ngi tudd Ousmane al Mbakkiyu kon Ousmane mii nag moom sëñ Moussa day wax ne maami Serigne Touba yi nga xam ne nii ñoo nekk ay wolof nga xam ne ñu ngi wax wolof foofu la tàmbalee maanaam foofu la tàmbalee wàcc jëm ci jëm ci ba ci Serigne Touba waaye la féete kaw maanaam bàyyi Ousmane jëm kaw ñooña ay tukkulóor lañ am lañ doon làkk tukkulóor kon ay maamam ñu ngi bàyyi ko Fuuta waaye nag boo ko toppaatee dañuy bokk ci benn giiru arab gu ñuy wax di la muudi nalla di muudi la nag boo demee ci irwa u nadim bu seex Muhammad Lamin Jóob Dagana nga xam ne da ciy waxtaane jaar jaari Sëriñ Tuuba xaadallaahu lahu maxtaara lahu day wax ne sëñ Muxtaar Bintaloo nga xam ne ma nga dëkk ñoom rek di seexu sëriñ Touba day wax ne benn bis dañ doon waxtaane génn giiru araab bu nekk Mauritanie gu ñu wax alumu di nal la di tudd seen ak seen ak seen ak baax ak seen ragal yàlla ak seen ak tedd ak seen nangoo jaamu yàlla ci la sëriñ Touba ne xanaa xamoo ne sëriñ Touba daal di wax ne xanaa xamoo ne ñooy ñooy suñuy mbokk te ñooñu nag dañoo bokk ci giiru arab goo xam ne ay shérif lañ bokk ci giiru arab bu ñuy wax goo xam ne ay shérif lañ euh, Sëriñ Tuubaa nag bi nga xamee ne maam Ousmane moomu nag jóge na Fuuta ñëw Jolof bi ñëwee nag mi ngi wàcc ngeeneen Sëriñ Musaa Ka nee na awalu man silihi ngeeneena makasa fiha haajiran sinina minha ila alqaryati mbakke doode mansilati lkiraami ljuduudi daarun laha aljaamiu waljamaa maa almasajidi bi xayri taa qad assasuha bi tuqan wa ilmi wa amalin wa adabin wa fahmi kam labisu fiha min assinina miatu aamin suma nayfin xiina kon sëriñ Moussa Ka day wax ne fiñ njëkk a wàcc mooy ngeeneen ngeeneen nag ñi sant ndaw ñoo ko moom ñi sant ndaw nag ñi ngi doon ñu ngi doon falu euh, bëllëb bëlëb lañ doon falu ci jolof ab xeetu ndaw ma tànk la goo xam ne nii euh, buur ba jolof daleen ko daa fal ñoom nag ñoom ñoo dalal euh, ñi sant Mbàkke gannaaw bi ñu gàddaayee Fuuta ñëw Jolof sax nañ fa nag ay at après nag ci lañ fa daal tuxoo nag daal ñëw sanc dëkk bi ñuy wax Mbàkke Doode Mbàkke Doode nag ñu sanc ko tabax fa jàkka ànd ak ragal yàlla ak xam-xam ak jëfe ak teggin ak dégg ñu sax fa ay at nag lu ma téeméeri at yoo xam ni sax nañ ko ci mbàkke doole googu léegi nag bañ fa jógee nag nga xam ne kon Ousmane maam Ousmane maam Saïd maam euh, Mouhamadul Kabir maam Habibullahi euh, maam Habibullahi moomu nag moom nag moo fa tuxoo daldi ñëw nag fii ñuy wax Mbàkke Sañànka daal di fay ñëw bi mu fa agsee nag la dajeek ku ñuy wax maam atumaan aram ñang moo ko may doomam di ñuy wax maam aram ñang xam ne maam atumaan aram ñang da koo tudde aram ñang yaayam maanaam aram ngom ñang maam atumaan aram ngom ñang mooy bàyyi euh, aram ñang aram ñang moomu nag moom la may maam xabiballaayi mu am ci maam maharam euh, maam atumaan aram ñang moomu nag nga xam ne mu ngi bokk ci askanu ñangeen bi nga xam ne nii askan wu tedd la muy sant ñi nga xam ne ñoo euh, nekk aafe nga xam ne dañoo tedd lool te ñu bëree bëri sëtu ca foofa la maam aram ñang bokk mi nga xam ni mooy yaayi maam maharam maam atumaan aram ñang moomu nag nga xam ne mooy bàyyi maam aram ñang maam maharam moom baayam mi ngi tudd maam abdu yaat ma ñang maam abdu yaat ma ñang moomu nag baayam mi ngi tudd maam yaat ma muudi ñang maam yaat ma muudi ñang moom it baayam mi ngi tudd maam muudi xujja ñang maam muudi xujja ñang it baayam mi ngi tudd maam Bakary Gidi Maxa nga xam ne foofu mu ngi bàyyi ko Gidi Maxa nga xam ne kooku mooy cosaani mbooleem ku sant ñang maam Maaram Mbàkke moomu nag sëriñ Moussa Ka day wax ne amma bayaanu amri alil jaddi muhammadul xayri kasiiril jiddi fa huwa aalimu kasiirul kasiiru sinni qad xawa fi lilmi kulla fanni wulida taqriban bi aami ayqashin wa maata fi lharami aama yurusi leeral mbiram waa kër maam maaram maam maaram moomu nag ñi nga xam ne moom la ñuy wax Muhammadul Xayri noonu la tudd moom nag dafa nekkoon boroom xam-xam te nekkoon na ko bari ay at ndax mag la woon dund na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent moom maam maaram Mbàkke nga xam ne làq na ci xam-xam bépp fànn moom nag mu ngi juddu ci atu gàddaay ga ama ay xasi mooy junni ak téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi ci la juddu mu ngi faatu ci ama yoru si junni ak ñaar téeméer ak fukk eh, ci la faatu moom nag mu ngi juddoo Mbàkke Sañanka moom it fa lañ ko denc fa la faatu ñu denc ko fa moom nag eh, jàng na alquran ci waxtu ndawam ak xam-xamam waaye nag mi ngi ko jànge nag ci waajuram waajuram jàng na alquran ci waxtu ndawam ci waajuram jàng na it xam-xam ci waajuram waaye gannaaw booba nag moom maam Maaram Mbàkke dafa daa laxas nag dem nag di sàkku ji xam-xam nga xam ne luga ak fiq mi ngi ko jàng ci maam Masàmba Caam moo tax suñ Moussa Ka ne wa baxda za irtaxala taalibal lugaat wal fiqhi min Masamba Caama zil hibaat nga xam ne kon luxa ak fiq moom ma ngi ko jàng ca maam Masamba Caam wa nahwa min sayidina al muxtaari al aalimi kokki zil anwaari naxwu nag moom ma ngi ko jàng ca maam muxtaar ndumbe nga xam ni mooy boroom xam-xam ba nga xam ne moom moo sañ ci dëkk bi ñu wax kokki nekk nag ay boroomi leer nga xam ne daaraam jooju di kokki boroom xam-xam yu bëree bëree bëree bari ñëw nañ fa di fa jàng si maanaam ñu bëri jàng nañ fa tey jii ñu nekk ay boroomi xam ndax euh, fànn gii ñu wax kokki dañ ko mënoon lool ba ñu bëree bëri ñëw doon ko sàkku ci maam Muxtaar Ndumbe Jóob ba maam Maaram it gannaaw bi mu jàngee luxa ak fiq ci maam Masamba Thiam dafa daal di jógee ñëw ci maam Muxtaar Ndumbi Diop di fay jàng xam-xamu naxwu gannaaw loolu nag bi mu ñëwee nag la denc doomi najaayam awañang bi mu dencee awañang nag mu am ca Ibrahima Awa Niang ak euh, soxna Mbacke Awa Niang ak soxna Astu Mbacke Awa ak soxna Xari Mbacke Awa Niang moom ñooñu ci am ci doomi nijaayam jooju mu denc keneen kam dencaat mooy euh, soxna Farimata Seck soxna Farimata Seck nag mu am ci maam Ahmadou Farimata na Cerno Farimata maam Cerno Farimata mii nag mi ngi ko tuddee sëriñam ba nga xam ne moo ko jàngal euh, xam-xamu luxa ak xam-xamu fiq muy maam Masamba Caam waaw moom la ko tuddee muy Cerno Farimata noonu la ko tuddee moom ñaari doom yooyu la ca am mu daal di dencaat nag soxna Buso soxna buso mii nag moo boole mbàkke ak mbusoobe moo leen boole soxna buso bi mu ko dencee nag mu am ci ahmadu soxna buso ak sayar soxna buso saayit nag la saayit soxna buso waaye wolof mooy wax sayer sayer waaye saayit la saayit soxna buso xam naa nag ñu def fii ak leeral mooy maam soxna Bousso mi ma nga dëkkoon xob bi siise euh, ndax maam Hamad Ali maam Hamad Ali bi nga xamee ne jóge na Fuuta moom it ñëw Jolof ci xob bi siise googu la dal euh, suñ xob bi siise may ko doomam yu ñuy wax euh, soxna Xujja siise mu am ci ñaari doom Euh, sëriñ ma Matabara Bousso ak euh, maam Soxna Bousso maam Soxna Bousso mii nag moom la maam maaram denc am ci Ahmadou Soxna Bousso ak Saïd Soxna Bousso euh, maam Matabara Bousso mii nag moom moo jur maama Bousso Awa Mbaay maam Bousso Awa Mbaay nag mooy waajuru maam Jaara Bousso maam jaara bu su mooy waajur wu jigéen sëriñ Touba noonu moo boole Mbàkke ak Mbusoobe maam Maaram Mbàkke daal di dem mbayeen cas bi ñu may ko soxna mbay mu am ci benn doom bu góor bu ñuy wax maam Abdou soxna mbay gannaaw ba ñu may ko soxna Absatu Njaay mu am ci maam Seynabu Absa Njaay kon ñaari soxnaam yi ku ci nekk benn doom bu la ci am léegi nag maa bu soxna mbay mii moom moo jur ki ñuy wax soxna astu mbàkke soxna astu mbàkke moom nag moo jur soxna ab satu sekk soxna absatu sekk moo jur sëriñ Musaa Ka ba tey sëyna bu absa njaay mii it ba tey moo jur Mouhamadou Seck ndax moom daa demoon tey ba cekkeen daa dafay am Mouhamadou Seck sëriñ Mouhamadou Seck mii nag moo jur soxna absatu sekk soxna ab soxna ab sekk ba tey mooy yaay sëriñ Moussa Ka kon sëriñ Moussa Ka dafa sëtoo ci maam Maaram ñaari yoon moo tax mu wax ko ci xarnu bi waykat yi bu ñu yeboo ne xiim maa war di xaadimul xadiim damay murid di jaam di doom te gën a bon ci xarnu bi ngir ma Abdu Mbàkkeem soxna mbay ak Maaram mi ñëpp ngoy mooy bàyyi yaayi sama ndey maa dikk nii ci xarnu bi Seynabu Mbàkkeem Absa Njaay ak Maaram mi ngeen ji baay mooy yaay baay sama yaay maa dàmbe nii ci xarnu bi kon moom dafa sotoo ci euh, maam ñaari yoon maam Maaram Mbàkke nag bi nga xamee ne moom it jàng na ba lim war a jàng ba agsi ba euh, samp këram ba am ci njaboot gi li nga xam ne nag moo waral sañc Mbàkke Bawal maanaam mu jóge Jolof ak njabootam jugee Jolof ñëw fii ci Mbàkke Bawal li ko waral nag mooy maam ma Sàmba Caam bi nga xamee ni moo jàngal maam ma Aram luxa ak fiq dafa nekkoon sëriñ daara bu mag boo xam ne nii ñu bëree bëri dañoo jàng si ci moom euh, bokk na ci maam ma Laamin Saar moom dafa jànge ci moom euh, ak maam Mokhtar Ndumbe maam Mokhtar Ndumbe Diop ñun dañ faa jànge léegi nag euh, maam Lamine Sarr bi nga xamee ne jàng na ba noppi dafa demaat ci ab dëkkam caareen jama fii ci wetu njaareem daa di nekk yàlla defaloon ko nag muy borom barke bari mbooloo mbooloo mu bari daa ko dikkal bi nga xamee ne mbooloo mi dañ ko daa dikkal nag loolu nag jafe-jafe yooya nag dem na ba am ceeg jafe-jafe buur bu fi nekkoon jamono yooya nga xam ne boobu moo yilif kajoor ak bawal di demmeel teeñ amari ngoone ndeel a kumba jaariñ bokk ci néegub géej ñoom ñaar ñuy nag dem nañ ba am ay jafe-jafe ba mujj gi nag dammeel daal di koy raylu sëriñ Moussa day wax ne sabab sa gannaaw yàlla ak dogal ba ak mbóoti sët yaak mbóoti sayxi bàmba sëriñ ma saar ma dëkkoon caareen te xam ne ñoo bokkoon di jàng caameen ba ko dammeel amari ngoone rayloo ngir na mu mel ci réew mi ma ngay ragloo dammeel ne leen danaa ko rey baa génne ko ngir li mu xam ci réew mi man sax ëwma ko léegi nag moom dammeel moomu nag mbooloo mi doon dikkal ma laamin saar neexu ko ba mujj gi am nañ ay jafe-jafe dammel nag daa di yebal nag maam Samba Fabe maa Samba Fabe moomu nag moo ñëwoon nag daa di nekk ab donga maanaam ne moom day jàng si daa laxas di jàng si waaye nag loolu taxu ko jóg daa ñëwoon rek pour ray si Malamine Sarr waaye nag pour mu def ko day ñëw nekk ab donga ne day jàng si fa nekk nag ba am fa am at nga xam ne maanaam moom ñëw na fa di jàng si di seet pexe mu ko rayee biñ demee nag ba wéet ñoom ñaar nag ca tookëru tookëru puloo ba maanaam fa ñuy bayee ñaam bi foofa nag lañ wéet ñoom ñaar rek mu daal di koy rendi léegi bi mu ko rendee nag la daal di dem làmbaay daal di koy wax dammeel dammeel teeñ ne ko ren dinaa ma laamin saar léegi nag keroog nag la ko fal faraka ba am na ñuy wax ne ku ñu wax yaa xam ngom moo ko rayoon moo rey moo rey euh, Malamine Sarr waaye nag maa Samba Fabe moo dem wax ko dammel teeñ am ri ngóone ndeena kumba jaari waaye dañuy wax ne ku ñu wax Xasan Amar moom day wax ne maa Samba Fabe mii de nee nañ moo rey Malamine Sarr waaye ki ko reyoon de ba ba muy dee day jooy di yuuxu di fatamtu naa wóoy yàlla dafa taw ci kaw ci kaw yaram wa am ndox mu tàng wit ba mujj gi day yuuxu naan day ëllëg buñ demee yowmal qiyaam maag ma laamin saar dana doy waar lool ndax yàlla rek mooy buur dammeel teeñ mii de buur nga xam ne noonu la nekk di wax di wax ba mujj gi mu daal di faatu moom ki rayoon ma laamin saar léegi nag sëriñ si nga xam ne nag ñoo nekkoon ci waalo ak kajoor ak bawal jàpp fuuta ñoom nag biñ ñëwee jaale si nag am lu leen naqari lool nag seen mbokkam daara mii ñu rey léegi nag ñu ne nag dañuy takk ab xare maanaam mm, dal ci kaw dammel teeñ amari ngoon a ndeen kumba jaari waaw dañuy wax sax ne xare ba ñu ko jiitu woon sëriñ kokki ahmadou fa xujja jóob ak euh, sëriñ madun soxna ñaan mooy bàyyi saa xew soxna mbay mi jur Lat Joor ak sëriñ daam isra sëriñ daam sira xujje kumba loo nga xam ne boobu mooy sëriñu ndaam ak sëriñ pir euh, sëriñ Mamour Fall booba ñoo jiite woon xare ba ci jamono jooja bi nga xamee ne sëriñ si dajee nañ ne dañuy xeex ak dammeel teeñ amari ngóor ndeelu kumba jaalin moom nag mu dajale ab xare moom it léegi nag euh, sëriñ si yónnee ndaw ca maam maaram boobu mi ngi jolof wax ko mbir mi ni mu demee lépp mun leen nag yéen loolu du jihaat ndax jihaat da ngay ngir tasaare lislaam waaye yéen dañ leen a rayal ngeen bëgg a fayu kon du jihaad bu doon jihaad de ma bokk ci léegi nag loolaa tax nag bi nga xamee ne sëriñ si nag songoo nañ ak euh, dameel teeñ am ringo na kumba jaarin ah mu daa leen gañe maam maaram nag bi mu toogee ba déwén ba nga xam ni maanaam coow li wàññeeku na mu daal di jóge jolof ngir jaale fi mbokkam daaraam mii nga xam ne moom la demee teeñ am nañ ko ndeer kumba jaay rey nee bi mu dikkee ba agsi fu ñu wax guy fukki séer bi mu agsee foofu nag mu daldi yónnee nag ca dammeel daal di koy nuyulu dammeel daal di koy fay daal ne ko na ñëw maanaam da ko da ko da ko ndax booy dugg ci ab dëkk dangay ngay tàggu boroom dëkk ba ba mu jox la ndigal moo tax maamaara bi mu agsee ci fu ñuy wax guy fukki sér la yónnee ci dammeel pour yëglu ne ko maa ngi jóge jolof damay ñëw bawal caareen jama ngir jaale si sama mbokkum daara malaamin saar léegi nag dammeel nag bi nga xamee ne dikk na moom maamaaram dikk na ba agsi dammeel moom it dana ko léegi damaa bëgg ñun ñaar ñu daje ñu waxtaan bi nga xamee ni nag am na sax ñu ne ko daal euh, dammeel dalaa bëgg a rey comme nam defoon ma laamin saar mu ne ko déedéet naa dem rek bi nga xamee ne agsi na ñoom ñaar ñu daje moo tax suñ Musaa Ka bañ saaku xatee bañ saaku xantee buur ba naa ko yow maam la doon sa soxla ba nga jóg te fii du saam amari ja may bàyyi jay la ja sa maam moom lañ ma tudde du ma def du ma te du ma def ci yow lu xaraam loo wax ma def ko du ma juyoog say ndigal li feek ba ngay dellu jolof doo gis mbugal kon ñoom ñaar bi ñu waxtaanee euh, Amari Ja nga xam ne moo jur Jayla Ja di maam ci maam Maaram Amari buubu Ja moomu nag moom lañ tuddee Amari Ngoone Ndeela Amari Amari Amari Ngoone Sobel Amari Ngoone Sobel mii nag day turandoo ndax maam la ci euh, Amari Ngoone Ndeela Kumba Jaarin nga xam ne boo toppee ay maamam ay silsilaam maam boo toppee càllaam day dem ba ci Euh, amari amari amari amari Ngor Sobel mi nga xam ne nii euh, moom moo xeexoon xeexam boobu xeexu dànki boobu nga xam ne moo libeere Kajoor moom nag mooy maami amul euh, amari Ngor Ndeela Kumba Jaari te amari amari Ngor Ndeela mii amari amari Ngor Sobel dañ koo tuddee amari Buubu Ja amari Buubu Ja maam la ci maam maaram moo tax mu ne ko yow du ma def ci yow dara ab safaan du ko def ci yow ndax samaam lañ ma tudde daane ko nag lan moo nekkoon sa yitte mu ne ko jaale si sama mbokkum daara sëriñ ma laamin saar ak euh, ñi nga xam ne ñoom nga jàppoon ci doomi soxna yi maanaam sëriñ si nga xam ne ñoo takkoon xare euh, doon xeex ak yow nga bàyyi leen moo tax sëriñ Moussa wax ne mu ne ko jaale si sama mbokkum daara sëriñ ma laamin saar donay muxtaara ak bëgg koo jàppoon ci doomi soxna ci xare bi nga ba ko yàlla sax na wala ma jot ko jox la njot ga abada nga jox ko seeni woroom ya ngir muhammada ngir xeex la loolu du jihaad ku jàpp jaam ci xeex bu dul jihaad du tax mu dooni jaam moo tax amaana ku ñu naab jaam la ci xeexi saalum ak feneen tes gor la da na sunu maam maharam yaay aalim yow yaay borom wilaaya ne leen maalum keroog la dammeel bàyyi mbooleen jaam ya yónnee ca kàngam yi ñu jéggal jaam ya ku mënta ba maam maharam jot ñépp diggante saalum ak kajoor ak fépp maam maharam wër na di jot ngir yàlla ba ñépp dellu ñépp def mbaa yàlla loolu nag nga xam ne moom la maam maharam doxe ci xelam mu rafet moomu ba mujj gi coow li amoon lépp daa di di sedd léegi nag ci la dammeel nag daan ne maam maharam man de dama bëggoon nga ñëw fii dëkk fi nga ñëw dëkk fii ci bawal nga jóge jolof ñëw dëkk fii ci bawal ma def la ab sëriñ ndax yow boroom xam-xam nga mu ne ko ah mu ne dammel man duutuma jóg jolof njaay ndax maanaam mag laa te ña nekkal foofu ca jolof maanaam buur ya fa nekkal jàmm laa séq ak ñoom waaye nag danga may jox ab dëkk boo xam ne nii dëkk bi bu may jógee sama dëkk ba nekk fale ca jolof mën naa faa jóge ba agsi te duma jaar ci loo xam ne nii maanaam buur da koy moom maanaam da may jox dëkk boo xam ne mën naa jóge sama dëkk bee ci Jolof ñëw sama dëkk bii ci Bawal mu daal di koy daggal nag fuufu ci penkum ñaraxlaan bi maanaam ci kànka mooy fii Mbàkke nekk ak tuubaa ak Daaru Salaam ak yooyu yëpp mu daal di koy sancal foofu léegi nag mu ne ko nag xam naa ma du ma mën a jógee Jolof waaye nag sama doom ji di ahmadu farimata danaa ko fi bàyyi da mel na ko man kay ibrahima awañang mii laa bëggoon sax nga mu nekk ak man mu ne ko boobu mënuñoo tàggoo ndax mooy sama loxoom day joor mënuñoo tàggoo waaye nag ahmadu farimata mii nag mooy sama taaw danaa ko fi sancal léegi nag dammeel ci boppam nag daa di woolu buur si laa mooy mooy buur si laa maanaam ki nga xam moo yilifoon laa ndax laa boobu province laa moo yilifoon penku penku bu penku penku euh, fii Mbàkke nekk jàpp kànk saate dëkk yu yépp euh, laa moo ko yilifoon maanaam province boobu moo ko yilifoon te it foofu la euh, sëriñ si dëkk maanaam doomi soxna yi foofu lañ dëkk léegi nag ñaari fay dalal maam maaram mu sañc fa ab dëkkam ñu tudde ko Mbàkke ñaraxlaan maam Balla Aïssa mi ngi gane jamono Mbàkke sa ñànka moom nag Mbàkke Bawol magee na ko ñaari at maanaam biñ sancee Mbàkke Bawol ba am ñaari at ci la maam Balla doog a gane jamono léegi nag moom mu nag maam Balla Aïssa bi nga xamee ni waajuram noppalu na di maam Maaram ndax maam Maaram bi maam Balla gane jamono boobu mag la bi nga xamee noppalu nag ki ko jàngal alxuraan mooy maam ma tabara buso moo jàngal alxuraan maam maam Balla Aysa ak euh, doomam ji ñuy wax maama buso mbaay muhammadu buso tam siiwee ci maama buso awa mbaay moom mu nag bi nga xamee ne alxuraanam yegg na ñoom ñaar ñooñu dañoo ànd ak maam Masamba Anta Ceebo daa dem jàngi xam-xam laxas ca ngiig dem jàngi fa bi nga xamee ne maam Balla Aïssa alquranam yegg na xam-xamam yegg mu jàng li war a xam ci fànne xam-xam yi nag ci la ñëw nag dellu si Mbàkke Bawal bi mu dikkee nag fekk na ñaari magam yooyu nga xam ne ñoo ma woon Mbàkke di maam fari Farimata ak euh, maam Ibrahima Awañang faatu nañ ak doomi maam maaram yépp daa moom rek moo ci def léegi nag mu daal di ñëw daal di moom Mbàkke léegi nag euh, ak njabootam nag nii la demee moom maam Balla ay sax nga xam ne mooy maam maami Sëriñ Tuubaa ki njëkk a denc mooy Fatima soxna Fatima am ca soxna Astu Mbàkke ak euh, maam Abdou Khadir Mbàkke euh, maam Abdou Khadir nag moom moom moo moom moo bind kaamil kaamil bi nga xam ne nii moom la moom la waa Mbàkke doon doon nga xam ne ñu sotoo ci maam Balla Aysa ku ci mag rek yaay yaay moom kaamil bi maa Abdou Khadir mii moo moo ko bind moom nag ñaar ñooñu la ci am mu daal di denceet doomi nijaayam ñuy wax soxna Anta Sali Kan euh, soxna Anta Sali Kan nag mu ngi bokk ci néegab siin euh, waajuram nag mi ngi tudd euh, soxna Binta Seck soxna Binta sekk mooy waajuru soxna Anta Sali Kan soxna Anta Sali Kan mii nag ak euh, soxna Géey Kan ak Ahmadou Binta Kan euh, ñoom nag ñoo bokk ndey ak baay euh, Masamba soxna Géey Kan mooy seen baay bi mu dencee soxna Anta Kan mii nag nga xam ne doomi nijaayam la mu daal di cee am Mamor Anta Sali ak euh, soxna Aysatu Mbàkke moom la ca am mu daal di nag dencaat soxna si ñuy wax soxna xaddi Jamaka soxna Xadi Jamaka moom euh, bi nga xamee ne maam maaram sañ si na Mbàkke Bawal ba fekk fi maam Moxtaar Jaylaka ñu bokk dëkk ñoom ñaar kii nekk kànka kee nekk mbàkke maam Maxtaar Jayleke dafa yëkkati doomam daal di koy may maam Ibrahima Awa mu am ci soxna Astu Mbàkke bi nga xamee ne Ibrahima Awa jóge na fi ci la ko maam Balla daal di doon daal di ci am Faati Balla faati balla mu ndaw faati balla soxraa ndax maam maam balla dafa am ñaari faati balla dafa am faati balla mu ndaw ak faati balla mu mag faati ndaw mii nag moom la ci am léegi nag bi mu ko ci amee daa di faati balla moomu nag moom moo dem ci maam Ibra Kanni maam Ibra Kanni ak soxna Anta Ndiaye Mbacke ñoo bokk ndey ak baay mu daal di cay am soxna buri kanni soxna buri kanni moomu maam Cheikh Anta gaawaan daal di koy yore am ci sëñ Muudu Maamun Mbàkke ba tey soxna Faati Balla moomu dafa daal di jóge daal dem lappe daal di fay am soxna jature soxna jature moomu nag moom lañ jox Sëriñ Tuubaa maam Bàcc Anta lañ ko njëkkoon a fasal waaye avant muy ñëw ci la maam Mbàkke daal di noppalu yaa di koy jox Sëriñ Tuubaa mu taawloo ci soxna Faati Ja ab taawam moo tax Sëriñ Musaa di wax ne déglul ma wax la maami soxna Faati Ja ci wàllu yaayam maam ya xam ya ja noo bokk menn maam ci wàllu kànka ci wàllu yaayam foofu man Musaa Ka sunu maam Sëriñ Kànka bu dégg yaaram bu tudd Muxtaar Jaay la ka mooy maamam moo njëkk a génn kànka dem ñaraxlaan sanc fa ngir jàngale réew ma saawaan maamam moo jàngal ñi doole aalim ca kànka ak mbàkke ma nee su koo lim mbàkke ñaraxlaan moo ko jox maam maharam ca ama shaq da mu samp fa këram kon loolu loolu moo leen boole mu nekk mbokk gu yaatu goo xam ne nii euh, diggante kànk ak mbàkke dañoo yàgg ni ko suñ Musaa Ka euh, su ko ma dégloo tey jii ma dellu wax leen maami Serigne Touba yi bokk ak waa Ndeneen ngir maami Kanka ak maami Mbacke bokki maam te Fuuta Tooro ak Jolof kenn du ci jaam Aysa Sidé ak Sadio Sidé toppante bokk ndey ak baay mësuñoo kokkante muy Aysa ak Sadio moo boole Kanka ak Mbacke. naa bi mu amee soxna Faati Balla mu soxna Faati Balla mu ndaw ci maam xarijama ka doomi maam Moxtaar Jeela ka ca la nag daal ci amaat beneen doom bu ñuy wax. maam Mbàkke maam Mbàkke nag bi mu jàngee alquran ba alquran am yegg nag mu dem di jàngi xam-xam nag ca la euh, faatu ci ci dex googu dexu senegaal gi bi muy dem gànnaar la faatu amaan na ci beneen doom bu ñuy wax it euh, Abu Bakar Abu Bakar nag moom moom daa faatu ci ak ndaw kon maam Xari Jamaka ñett doom la fa am ñaar ñu góor ak benn bu jigéen maam Balla daal di dencaat soxna suñuy wax soxna Kanni Kebe daal ci am soxna astu mbàkke daal di dencaat soxna suñuy wax soxna faatimatu jóob moom nag mooy waajuru suñ mbàkke kajoor suñ mbàkke kajoor nag euh, moom mi ngi tudd euh, ibrahima maam ibrahima mbàkke waaye nag mu siiwee ci suñ mbàkke kajoor ba tey maam balla daal di denc soxna buri njaay daal ci am maam ab sa balla daal di dencaat soxna suñuy wax soxna Aminatu Silla daal di ci am soxna Mbàkke ak Jee Mbàkke daal di denc soxna suñuy wax soxna Yaasin daal ci am soxna Xadi Mbàkke ak soxna Mbàkke ak Sidi Mbàkke moom ñooñu ci am maam Balla nag ñii la ko yàlla dénk ci ak njaboot ñu ñëw ci njaboot ak Maam Mor Anta Mor Anta Sali Sëriñ Moussa Ka day wax ne yow miy laajte waa kër waajuru Sëriñ tuuba nga xam ne mi ngi tudd Mamar Anta Sali nga xam ne day jaamukatu yàlla moom di ab sëriñ la boo xam ne nii bu bari xam-xam la jàpp xam-xamu sariya ak xam-xamu xaqiiqa ak xam-xamu naxwu ak xam-xamu luga ak xam-xamu bayaan ak fiq ak xadis ak maani te ku yàlla mayoon mu nekkoon boroom xam-xam di àtte manoon a àtte ndax moom dadaa àtteel la jor boroom xam-xam la woon doon àtteel it Maba Jaxu Ba bi mu nekkee Saalum nga xam ne bari nañu siiw lool ci ci réew yi te jàng nañ ci moom euh, Mamor Anta moom nag Mama Samba Anta moo ko jàngal Mama Samba Anta Ceebo moo ko jàngal mi bokk ci waa Kokki moo jàngal Mamor Anta moom nag moom la tuddee Mama Samba Mama Samba Mbàkke am caatam moom la ko tuddee ba tey bi mu jógee ci Mama Samba Anta Ceebo it dem na jàngi xam-xam ca Saalum ci Cheikh Ahmadou Bamba Sall mi nga xam ne nii moom la tudde Serigne Touba moom it jàngal na ko xam-xam gannaaw ba nga xamee nag jàng na ci ñaar ñooñu xam-xam ndax maam euh, maam Ahmadou Bamba Sall moomu jàngal na ko ay fànne xam-xam yu baree bari bi nga xamee nag jóge na fa nag la ñëw nag daal di ubbi daaraam moom it di jàngale daal di sanc këram di jàngale ci la denc doomi baayam jii ñuy wax euh, maam Anta Ndiaye Mbàkke tam tudd soxna Astu Mbàkke soxna Aysatu Mbàkke mooy turam waaye nag soxna Anta Ndiaye la siiwe moom nag doomi Ibrahima Awañang la Ibrahima Awa Niang ak euh, maam Balla Aysa ñoo bokk maam maaram kon doomi baayam la denc bi mu ko dencee nag daal di am nag maam Mbàkke Anta maam Mbàkke Anta mii nag mooy taawab maam Mor Anta Sali moom nag moom la njëkkoon a jox soxna Jature yàlla dogal avant soxna Jature di ñëw euh, mu faatu ñu rafaatale ko sëñ bi sëñ mag bi mu am ci soxna Faati Ja soxna Mbàkke Anta la ci am moom la mooy taawam daal cee teg soxna Faati Anta daal cee teg euh, maam Cheikh Anta borom gaawaan daal cee teg Sëriñ Aafiya daal cee teg soxna Anta Sali soxna Anta Sali moom Maamoor Anta Sali da koo tudde yaayam gannaaw ga mu daal di denc it soxna jaara soxna jaara buso daal di cay taawloo maam Mor jaara moom la ca taawloo daal di cay tegit uh, Sëriñ Tuubaa xaadu la maxtaara la xoo daal di cay teg soxna Faati Mbàkke ak maam Xabibullaahi Mbàkke ñii nag ñoog siñ bi ñoo bokk lépp muy maam Mor jaara ak euh, soxna Faati Mbàkke ak maam Habibullahi Mbàkke ñoo sëñ bi ñoo bokk soxna Jaara Buso ak Maamor Anta Sali gannaaw ga nag mu daal di denc soxna Faati Matu Jóob soxna Faati Isa moom nag sëriñ kokki njaga isaa ko jur moom waa kokki la moom nag moo jur maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru daal di teg euh, Ahmadou Faty maam Ahmadou Faty nag moom daa teel a faatu moom avant muy nekk mag la faatu moom mi ngi faatoo Mbàkke mu teg ca soxna Faty Bintu Mbàkke soxna Faty Bintu Mbàkke mii nag sëñ ma ndubbee ko yoroon am ci sëñ Moodu Xabaan Mbàkke ak euh, soxna Aminta Mbàkke waaw soxna Aminta Mbàkke moom sëriñ daam Abdourahman moo ko yoroon euh, bi mu ko yoree mu am ci soxna Astu Lo ak soxna Fat ak soxna Aminta am na ñeneen sax ndax moom dañoo xam ne dafa seex ñetti yoon njaboot gu barkeel nag la ko ci yàlla jox ndax soxna Astu Euh, suñ fàlloo ko yoroon am ci soxna mbenn fàllu soxna amintaloo suñ mudu saa moo ko yoroon am ci suñ bàkki noonu la toppee nga xam ne njaboot gu barkeel la ci am moom soxna aminta loo soxna aminta mu ak suñ daam abdourahman loo nga xam ne soxna aminta mbàkke ak maam Cerno ñoo bokk ndey ak ak soxna faatu bintu ak so euh, sëriñ ahmadou faati ak maam Cerno ñooñu soxna faati mooy seen waajur gannaaw ga nag mu daal di denc soxna Fatimatu Jóob soxna Faati Isa Jóob moom nag sëriñ kokki njaga isaa jur moom waa kokki la moom nag moo jur maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru daal di cay teg euh, Ahmadu Faati maam Ahmadu Faati nag moom daa teel faatu moom avant muy nekk mag la faatu moom mi ngi faatoo Mbàkke mu teg ca soxna faati bintu mbàkke soxna faati bintu mbàkke mii nag sëñ ma ndubbee ko yoroon am ci sëñ mudu xabbaan mbàkke ak euh, soxna aminta mbàkke soxna aminta mbàkke moom sëriñ daam abdurahmaan moo ko yoroon euh, bi mu ko yoree mu am ci soxna astuloo ak soxna Fadlo ak soxna Amintaloo am na ñeneen sax ndax moom dañoo xam ne dafa seex ñetti yoon njaboot gu barkeel nag la ko ci yàlla jox ndax soxna Astuloo euh, suñ fàlloo ko yoroon am ci soxna mbenn fàllu soxna amintaloo suñ mudu saa moo ko yoroon am ci suñ bàkki madina noonu la toppee nga xam ne njaboot gu barkeel la ci am moom soxna amintaloo soxna aminta mbàkki mu ak suñ daam abdurahmaan loo nga xam ne soxna Aminta Mbacke ak maam Thierno ñoo bokk ndey ak baay ak soxna Fatou Bintu Mbacke ak so euh, sëriñ Ahmadou Fati ak euh, maam Thierno soxna Fatou Issa Diop mooy seen waajur. Mamour Anta Sali daal di denc soxna Coro Ma Roso daal ci am suñ Seex Coro ak suñ Balla Coro ak soxna Kumba ba ak euh, soxna Roqaya soxna Roqaya Mbàkke muy am ci ñaari yi góor ak ñaari doomi jigéen daal di denc it soxna Absa Jaxate daal di cee am siñ seex Absa daal di denc it euh, soxna Isa Jeey Jóob daal di ciy am sëñ Masàmba sëñ Masàmba nag mooy caatam Mamoor Anta Sali moom nag gannaaw waajuram la gane jamono ñu tudde ko sëriñu baayam euh, Maam Masàmba Anta Ceeba Jóob nga xam ne waa Kokki la kon leeral nañ askanu Mbàkke tàmbalee ko ca Fuuta Tooro bañ ñëwee bañ niñ agsee Jolof bañ sañcee Mbàkke Bawol leeral njaboot ak euh, maam maam Maharam Mbàkke njaboot ak maam Balla Aysa njaboot ak Maamoor Anta Sali ñëw ci askanu bi nga xam ne Sëriñ ñaar ñu ñëw ko seq muy Mbàkke ak bi kon bi ñu leeree askan leeralee askanu Mbàkke dañ leeral askanu Mbusoobe askanu Mbusoobe ñoom boo toppee seen ak càll la day dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ay sérif lañ waaye seen maam mii ñuy wax maam Hamad Ali maam Hamad Ali moomu nag euh, moo bàyyi ko Fuuta daal di ñëw Jolof bi mu agsee Jolof suñ xob bi siise moo ko dalal suñ xob bi siise nag moo yëkkati doomam ji ñuy wax soxna Xujja Siise daal di ko koy jox mu am ci ñaari doom benn bu góor ak bu jigéen euh, soxna buso ak ma tabara buso soxna buso moomu nag moom la mamaaram yoroon am ci ahmadu soxna buso ak soye soxna buso ma tabara buso nag daal di yor soxna suñuy wax awa mbaay am ci ma buso awa mbaay maama Bousso Awa Mbaye nag Mouhamadou Bousso la tudd waaye dafa siiwee ci ma Bousso Awa ma Bousso Awa Mbaye moomu nag daa di denc soxna Astawaalo soxna Astawaalo nag Ahmadou soxna Bousso moo ko jur Ahmadou moom it daa denc soxna Ndumbe Daanu Ñang ci aafe daa di ci am maam Astawaalo ak maam Tafsir Mbàkke Ndumbe maam Tafsir Mbàkke Ndumbe mi Euh, moo jàngal sëñ bi alquran ndax euh, nijaay nijaay yaayam la nijaay yaayam la maanaam maamam la daal moom maamam ñoo bokk ndey ak baay maamam bi jur euh, maam Asta moom it ma buso ama baay daal koy denc daal di ci am soxna jaara buso ak sëriñ buso bi ak soxna mati buso soxna jaara ñu jox ko Mamor Anta Sali mu am ci Serigne Touba ak ñim bokkal soxna jaara ñëpp ba tey Ahmadou soxna Bousso it moom moo jur soxna ab Absa Lawbe ndax soxna Astawaalo ak soxna Absa Lawbe ñoom ñaar ñoo bokk benn baay euh, soxna Absa Lawbe nag moo jur soxna Faati Isa Jóob soxna Faati Isa ba tey it moo jur maam Thierno Ibra Faty nga gis ne kon Serigne tuubaa ak euh, maam Thierno seen ñaari maam yu jigéen yi jur seen yaay ñoo bokk benn baay Ahmadou Soxna Bousso moo leen jur. bu dee maam Cheikh Anta borom gaawaan ak Serigne Afia nag ñoo Serigne Touba euh, soxna Anta soxna euh, soxna Anta Ndiaye Mbacke Ibrahima Awaña moo ko jur. Serigne Touba Mamor Anta Sali Ibrahima Awaña eh, eh, Mamor Anta Sali Maam Balla Aysa kon da gis ne Maam Balla Aysa ak Ibrahima Awañang ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk Maam Maaram Mbàkke kon Mamor Anta Sali ak eh, Soxna Anta Njaay Mbàkke ñoom it ay doomi baay lañ seen baay yaa bokk benn baay waaw gis ne kon nun la mbokk ci demee ñu ngi jéggulu ñëpp rek di nuyu ñëpp rek di siyaare ñëpp wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa taala wa ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné tey bës cloche notification yi ngir seen vidéo bu ngeen mën si te ngeen di bës like bi am na ci solo te ngeen di commenté tey partagé.